la patriote di maa ngi di nuyu bu baax di len ziaré di len jox wati way di wax suñ mbokk journaliste yi ak presse bi maanaam su nit mana lu baax da ngeen koy wax parce que man dama japp né yeen wër di ci rek mom mo len ñor ndax dafa am lo xamante ci ni suñ mbokki baykat yi dañ ko yàgg joytu muy jiw wi nin koy sédélé baaxul nin koy sédélé baaxul du ag ci ñom gisoo journal bi ba génn 2019 la woon ngeen doon ñaan ñu jox armée bi pour mu séddale jiw le président Ousmane Sonko ñëw def ko ak le président Bassirou Diomaye Faye kon loolu dañ ko war apprécier xamal ko nit ñi xam ne ab jooy la boo xam ne mbokk baykat yi doon nañ ko ba pare def nañ ci mbay mi cent vingt milliards cent milliards la ci Macky Sall defoon cent vingt milliards lañ ñëw yokk ko ñi nga xamante si ni Macky da leen a yore woon xaalis muy opérateurs yi ñëpp dañ leen di fay dañ leen di fay bind nañ ko pare dañ leen di fay loolu nanu ko wax mu leer su ngeen ko waxul mu leer ñun danañ ko wax mu leer incha allahu rabbi kon ca kaw ca kanam baykat yi na ngeen xam ne lii lu ngeen yàgg a jooy la. yéen yi séddalee euh, jiw wi transparent wu jaarul yoon ak siwut ci yeen ay nit ñoko daan akimo jox ko ñeleen neex ño xamne xamu ñu beri jëm ñu jox leen engrais jox leen jiw ñu jaayaat ko ñi ci bëri heure bi daana fekk ñu lek ay millions yu bëree bëree bëree bëree bëri kon nak président Ousmane Sonko gatcha ngalama président Bassirou Diomaye fay gatcha ngalama li baykat yi dañ ko yagga sakku ban koy sakku tay tey yéen a ñëw def ko def ci mbay mi cent vingt milliards pour ñu séddale jiw yi pour ñu séddale jiw yi Macky Sall cent milliards la ci defoon kon ku yokkul da ngaa wàññi te bi ngeen ñëwee da ngeen a yokk loolu na ngeen koy wax te bàyyi di nëbb lu baax li